Eh, salaamaaleykum ati xale yi maa ñëwaat ak yéen di leen bantuwaal benn léeb bi lée sama yoon nekku ci caayite mu nekk ci sama yoon nekku ci te nga yëg sa moroom sama yoon nekku ci boobu mooy léebu tey bi nit danga xam sa boroom yëg sa moroom jamono jooju rab yi mala yi daan di wax ak nit yi daal di jokkoo entre ñoom di wax ak nit yi mu amoon benn bés nag ci dëkk boobu dëkk àll boobu nga xam ne foofu amul néegu zinc amul néegu carreau amul néegu terrasse amul néegu ardoise ak yooyu ay néegu ñax la woon bés boobu nag ci kaas bi benn meer bu màgget ndeysaan nekkoon ci kaas bi dafa màggetoon ba du mën a génn fa lañ koy teg léeg-léeg ñu génnee ko weer ko ci biti si naaj bi laal ko ñu dugalaat ko ndax mënul àttanatul dafa màgget bés boobu nag ñaari si ndax doon xeex ci kaw te xam nga néeg yooyu dañuy taal taal bu ndaw ndax meer bi dafa màgget sedd bi daf koy jàpp léegi dañuy taal safara bu ndaw ci ki biir kaas bi kaas bi amul karo kaas bi kenn du ko cimenté ñax la euh, suuf lay nekk voilà ci wetam ci bor yëpp ay ñax la amul tabax ay kaas la léegi maire bi nekk foofu ñaar si daal di xeex di xeex di bi rëb rëb rëb bur bi bëri bi bëri xaj bi daw si xaj bi daw si bu mu agsee rek mu gis ñaar si ndax yi di xeex ci kaw mu génn dem gis ginaar gi sekk ji ginaar bu góor yi mooy sekk mu ne sekk bi dawal ne boroom kër gi ñaar si ndax yaa ngi xeex ci kaw ci kaw toit bi nañ lay ñëw atte gaaw lu ko sekk bi tontu sekk bi ne ko sama yoon nekku ci ay si ndax yuy xeex sama yoon nekku ci ah, xaj bi amati problème xaj bi daw daw daw dem si wetam gis benn kuy bi xar bu mag xar bi mooy kuy mooy kuy bi gis xar bi ne ko xar dawal ne boroom kër gi ñaar si nag ya ngi xeex ci néegu meer bi te meer bi daa maget dara wóorul kuy bi ne ko loolu moom ay si nag yi xeex sama yoo nekku ci ca yàlla xaj bi turne si wetam gis fas bi mu ne ko voilà fas yaa gën a gaaw demal gis boroom kii bi demal ne ko sindax yaa ngi xeex si biir néegu maire bi te wóorul phase bi ne ko loolu ay sindax yu xeex sama yoo nekku ci xaj bi bëgg ba am problème mu tourné fa dem gis léegi yëkk bi yëkk bi c'est la taureau mu ne ko yow dawal ne borom kii bi boroom kër gi ne ko ñaar ndax yaa ngi xeex si gaz bi te maire baa nga fa dara wóorul yëkk bi ne ko sama yoo nekku ci ay si nekkuy xeex ma gisuma si si ndax sama yoon nekku ci ah! kon gis ngeen xaj de gis na e, kok bi seq bi seq bi ne yoon nekku ci mu gis yëkk bi yëkk bi ne sama yoon nekku ci ah! mu gis xar bu mag bi góor bi mu ne ko sama yoon nekku ci gis na fas bi fas bi ne ko sama yoon nekku ci léegi moom xaj daw daw daw daw daw gis ba mu àgg ci borom kër gi mu ne ko borom kër daw si sa yaay foofu mu tëdd ci kaw si ndax yaa ngi xeex te wóorul borom kër gi lu mu ko tontu ay si ndax yu xeex waaw li li sama yoon si ndax yu xeexee nañu xeex sama yoon nekku ci ah, sama gars yi yi fee ngi bëgg a bi dellu si wante balaa xaj bi daal di àgg si <laughs> fekk si ndax yi xeex nañu ba jaxase ñax mi si kaw ba si ndax yi seen bopp jaxase ñax bi ñax bi daanu ci ci biir xal bi xal bi daal di tàkk si ndax yi daanu xal bi daal di tàkk rek comme néegu ñax la néeg bi daal di boy meer bi daal di xëm mënul génn taal bi safara bi meer bi daal di dee ndax safara bi dafa lakk lakk lakk lakk ba dee mbir am na waaw waaw problème am na du maire bi gaañu na ah borom kër gi daw si bi mu agsee lu mu gis yaayam gaañu na pour pourtant moo ne woon sama yoon nekku ci léegi yoon nekku ci problème am na mënoon na atte de kon lii di ko ci fekk. problème yoonam nekku ci yaayam gaañu na si ne waa kon ni ngeen xamee dëj waa koñ bi daw si waa dëkk ki daw si ñu yëge si ñi toog yendu ay ñaar ñett juróom ñu di yendu man a ah, kon xanaa ñu jël kok bi muy seq bi ah ñu rey ko bokk ganale gan yi <laughs> ñu dem jëli seq bi te seq bi moo newoon yoon yoon nekku ci de xoolal bi ñu amee gan yi ñëwee seq bi lañ jël rey et pourtant neewoon na yoonam nekku ci <laughs> mu ne léegi doomam bi jëlal fas bi nga daw ci yeneen village yi nga yëgal ni sama yaay dafa gaañu ñu ñëw pour euh, ci dëj bi xale bi jël fas bi di daw ak moom te fas bi neewoon sama yoon nekku ci léegi fas bi moom lañ takk daw ak moom yëgul ko sara di daw di wër di yëgle yëgle dem village en village dem di village ilan dëkk dëkk dëkk dëkk pour yëgle dëj boobu kon di yoonam xoolal fas baa ngi kii sonn parce que neewoon na te moom neewoon na nekku ci ngi gan yi di ñëw ñëw ñëw ñëw ah amatuñu kii gan yaa ngi gën a bëri mu jël kii bi mu jël xar bi waaw xar bi dina fa new nekku ci ñu jël xar bi rey te pourtant xar bi naw na yoon nekku ci <laughs> léegi yoon nekk ci parce que ñu koy rey pour dëj bi léegi ñu jël xar bi rey ci pour ci dëj bi yokk te nit yaa ngi ñëw kee nag doom bi di jël fas bi daa ko moom di yëgle ba dëkk dëkk ba dëkk dëkk ba dëkk dëkk ba dëkk léegi bu gaa yi ñëwee ci dëj bi ah, nit yi bari bari sakkan sakkan bi nga xam ne dara xajatu fi nit yi faw ñu lekk yëkk bi neewoon yoonam nekku ci <laughs> ñu jëli yëkk bi waaw yëkk bi ñu rey ko et pourtant moom neew na yoonam nekku ci de léegi yoonam nekk na ki te bi ci yoonam nekkee fekkewu ko ndax rey nañ ko xoolal ma loolu rek fas bi demoon aussi yoonam nekku ci moom la ñuy jël wër dëkk dëkk dëkk dëkk di wër ak moom di ko wër di ko wër di daw ak moom di daw ak moom ba fas bi mu dellusee <laughs> amatul jàmm dafa tooy sonn sonn mu feebar mu jee feebar mu jee dee ah, sama gaay yi <laughs> seq bi new na yoonu nekku ci bi mu amee ñaar gan ñetti gan seq bi lañ jël rey kuy bi xar bu mag bi new yoon a nekku ci bi gan yi sakkan julli xar bi rey fas bi new yoon a nekku ci moom lañ jël di wër di pour dem yëgle kon par force yoon nekk na ci de par force dem di yëgle ba bu mu delsee dafa sonn bu feebar de yëkk bi nag bu mag bi new aussi tamit yoonam nekku ci ah buñ dellusee buñ gan yi bëree nag bi lañuy ñuy xëcc di rey kon ñooñu yëpp seen yow mu jël si nekk te fekkewuñu ko ndax dañ leen rey pour ci dëj boobu boroom kër gi tamit neewoon yoonu nekku ci yaayam moo ci gaañu kon mujj yaayam par force mujj na ci yoonam nekk na ci parce que yaayam moo gaañu ñàkk na ci yaayam ah sama xale yi ah samay xarit mes enfants samay xarit soo gisee nit ci problème jàppale ko soo gisee ay jàppaleel atteel soo gisee lu bon jéemal atte parce que da ngay xam kañ la commencé kañ la door waaye kañ lay jeex ak fan lay jeexee loolu mun ñu ko xam donc problème jàmbur na nekk sa problème sa problème xarit na nekk sa problème loolu la ñu mën a jàppante noonu la ñu mën a def pour dund dund bu baax dund bu sell am ay xarit ci laa fa jóge daw daaw ba dugg ci bakkan ba ci foon tabbi àjjana sama gaañ ba beneen l'heure du conte